xalaat de bëriwu ci ndaxte assemblée nationale bii amuñu ci benn yaakaar ndeysaan ndaxte assemblée nationale bii nekk lu fi askanu Sénégal assemblée nationale bii daf ñu tàmmal ay complot assemblée nationale bii daf ñu tàmmal lekk euh, xaalisu askan wi assemblée nationale bii daf ñu tàmmal ñàkk waxtaane li yitteel askanu Sénégal di waxtaane naka la ñuy faatee Idrissa Seck naka la ñuy faatee Khalifa Sall naka la ñuy faatee Karim Wade naka la ñuy faatee tey ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko. assemblée nationale bii loi Ezzan lañ ci xam loi Sada Ndiaye ak yu ñaaw yooyu suñu yaakaar yëpp ñu ngi ko teg ñu ngi ko wékk ci askanu Sénégal askanu Sénégal gii nga xam ne depuis altine mu ngi mobilisé wu ba tax fu mu nekk nii Macky Sall tiit na France ak ambassade fii tiit nañ. Nations Unies tiit na askanu Sénégal la ñu am yaakaar ci mu xam mu fàttaliku ne kuy bëree daan ay waleen ñu waa waajal bëre bi jërë ngeen jëf c'est